bonjour à nos fidèles téléspectateurs de la LCS. Je vous ai dit que c'est toujours un plaisir de vous retrouver tous les samedis à partir de 22h pour votre émission préférée li xew alors gis ngeen ko nee naa émission li xew ah Ça su nekk dañuy ñëw dugg ci li li gën a baaxee daal di mais lii du mën a étant donné que dafay am ñuy nekk ci suuf di nga xam ne bëgg sama émission waaye yéen régisseurs yi du ma leen faale ñi nga xam ne ñooy jàkkaarloo man ñoom laay waxal di leen béggal di leen nuyu ku ci nekk sa tur ak sa di leen wax nag seen émission ñi tali ni lay demee dama na a def tok waaw faax ah mel ni bu nek ci biir këram moom laa namoon moo tax tey moom def tay def cheveux bu gudd wa def vissé bu baax lepp pour ndax néna len sa su nek bu fi togué c'est juste pour vous faire plaisir alors ni lañuy tambalé hein ah, dañuy dem euh, en plus tay nag mu am benn ndaanaan benn kangam mi nga xamné bu ci kanamé mom lay ñëw kangam bi nak wax dëgg yalla dañu yàgg top ci ginnaw pour mu mëna a ñëw Michel dafa daal di dem ba kërëm ah daal dar ko nak par minute xam nga Michel mom nit ki mom bu bëggee dara mule mu lay dar par minute Mon la dem mais tout de suite vous vous allez la retrouver sur le plateau de l'Ireo. C'est une émission, une émission. émission c'est une émission l'Ireo. Tu ci bi le clip de la semaine alors le clip de la semaine Donnez un clip international oui un clip qui a été réalisé par Guilongal. alors juste après nous allons retrouver euh, avec notre rubrique Moi et avec la très talentueuse Tina hmm, qui nous a fait un reportage dans un salon de coiffure euh, juste pour vous et puis nous allons terminer avec, euh, bon pas terminer, on va continuer euh, ce programme avec la rubrique euh, People. Ouais, rubrique People revient avec Amina Gueignoro. Elle, elle, nous a fait un beau extrait et ce sera pour vous tout à l'heure. Juste après, nous allons continuer avec votre rubrique événementielle. Ben oui, tous les samedis, c'est les événements qui se passent à Dakar. Alors vous aurez votre rubrique événementielle et juste après, ce sera l'invité de la semaine. Alors tout de suite, sans pour autant tarder, on va faire simple, nous allons tout de suite regarder le clip. Oui, le très beau clip de DJ Arafat. Alors DJ G. Martins. Alors G. Martin, hein, qui a réalisé un clip avec euh, Stéphane, Stéphane King, le clip qui s'appelle AG, Équatorial, hein, Équatorial Guinea, qui a été réalisé, filmé par Longal. Alors vraiment, c'est un clip à tomber. Alors Moussa, à la régie, s'il te plaît, clip et on revient tout de suite sur le plateau de l'Ikhew. A tout de suite. De... retour sur le plateau de l'Ikhéo, alors vous avez si bien vu cette très belle vidéo de retour sur le plateau de l'Irem, alors vous avez suivi avec nous ce euh, très beau clip, je vous ai dit tout à l'heure, euh, de Jim Martins, de Stéphane, hein, Stéphane King et A-Kim, alors qui ont fait un très beau son de AG Guinée équatoriale. Alors vous avez suivi avec nous, euh, je vous l'avais tantôt dit, hein, ndaanaan bi nga xam ne Jim Martins nga xam ne def Ben, Ben featuring nga Stéphane King ak A-Kim ci Afrique. alors loolu dafa nekk lu am solo loolu te Jim Martins artiste. International, bi nga xamné jamono ji kenn ko présenter ndax bu baax bi nga la di def ci monde musical bi alors euh, barki Dema barki mu ngi Dakar ci ben ci ben événement nga xamné mom lañ fi na tamit soirée bu nice bu neex Vogue li nga jamono Dakar dalay dalal fele ci euh, place am di Vogue ku ci Davido euh, et hein, à non plus finir kep kuy dal. Almadi jamono ji Vogue Wow, émission li xew lañ wax kon fepp fo xamné xewna na mënta ñàkk mu daal di leen ko wax su ko defee ngeen daal di fa daagu bu ci li nga xamné moy euh, suñu ci li nga xamné moy euh, clip clip de la semaine on va tout de suite continuer avec euh, notre rubrique beauté mais avant cela j'aimerais bien faire un gros bisou à toutes ces personnes qui nous regardent depuis 22 heures dans votre émission préférée li xew plus particulièrement à Ndeye alors Ndeye Fall nag kooku nee borom tiep yu neexi suma ma wàccee bu bëgg moom moom moo may taajal ceeb yu neex kon Ndeye Fall nga xam ne mu ngi dëkk fële ca euh, Njaakirab ak i euh, waa famille am ku ci mel ni yaayam yaay nga xam ne saa su ne def ñu bëggee maman Ami Ba alors kooku sama yaayu bopp la wax dëgg yàlla ndax daf may ñaanal bu baax kon maman Ami Ba maa ngi lay def un gros bisou di la wax rek nga daal di yokk ñaan ni mais maa ngi koy sentir ba fi ma nekk nii ndax macha allah maa ngi gis ne yokkute avancement mais ma doyul doyul yaay booy damaa bëgg nga gën a yokk ñaan bi su ma jógee ci loolu damay big up ki nga xam ne mooy tamit euh, Mathi Camara alors Mathi Camara duma ko fàtte Coro euh, Fall Ndeye Guèye moom tamit duma ko fàtte duma ma fàtte Amadou Fall duma fàtte tamit euh, ki nga xam ne mooy Ndeye Fall ndax nee naa leen sànq mooy borom ceebu deex ñooy ñoom ñëpp ñu ngi fa dëkk fële ca ñaaxirat alors képp ku dëkk ñaaxirat tey yow laa diw bër bi diw ko ba mu niin waaye duma ma fàtte beneen waa Medina de bu ci kanamee léegi ci ñoom laay jëm mais banaa loolu nag dañuy eggal li nga xam ne mooy suñu conducteur dugg ca cappaandaw gi muy la rubrique beauté mode alors rubrique nag dañ ci àndal

tey nak pour ben salon de coiffure bi nga xamné jamono ji mooy beus mooy bom bu baax di def ay bop yu baax comme meunta ñak ñu dem seetaani et on revient tout de suite sur le plateau de li xew à tout de suite bonsoir Michel bonsoir Dolce bonsoir les le téléspectateurs de la LCS tey nag euh, ñu àndaat ba tey rek ak seen rubrique euh, mode et beauté fii nag moo taxaw fii ma taxaw yaakaar naa xàmmee ngeen fii tey nag ñu daal di fekk si nga xam te ni si mooy Oumy Gueye nag ah, ah dañ ko fekk si waat sax dañ ko fekk si waat balaa ñuy fas yéene wanaat nag li nga xam te ni si muy suñu coiffure de la semaine kon nag euh, sama gars yi Bonsoir Bonsoir Tina, ça va Ça va bien, merci. c'est une émission li xew ak euh, rubrique mode et beauté nous leen euh, seet cette waat Fichi, ci salon Oumy Oumy avant tout ma lay bàyyi nga nuyoo ak cette yi wa assalamu alaikum SS salam alaikum Sénégal c'est wa émission li xew ñooñu ñooñu seet si waat fii ci salon Oumy Gueye man nag Khoudia maa ko représenté fii ba wane ko coiffeur bi de la semaine coiffure bi moom ni ko plâtre côté yi euh, def boudin yi ci kaw génnee ko nii blonde greffage blonde def ko ni benn kën yi ci ginnaaw macha allah la neex na defar daal te yomb na. coiffure bi nu mu tudd. waaw coiffure bi banaan la tudd. coiffure banaan la euh, coiffure bi euh, yan genre milieu la la la mën dem. waaw coiffure bi mën na dem. mën na dem mariage. mën na dem ngénte coiffure bi daal mën na dem fu nekk. léegi coiffure bi est-ce que dina yàgg ah? est-ce que est-ce que dina durer lu yàgg. waaw dina durer lu yàgg. coiffure bi moom dina durer lu yàgg. léegi coiffure bi euh, dama dama gis blonde ci biir est-ce que lii teint teint noir mun na ko def parce que blonde pour man euh, pour ko xees la quoi pour moom li mu xees moo tax ngeen def ko est-ce que aussi teint noir dina ko mën def. waaw mën naa ne teint noir dina ko def bu ko defee tamit dafay génn. Mhm. mais ça dépend ci couleur yi. parce que mën nga def blonde am rouge am na façon couleur yëpp quoi. mais mën na né xees ku xees daal lay gën a génnee. gën a génnee naka nga gissé émission li xew. Wa émission li xew mom mën neex na trop dama koy suivre chaque samedi Wa. émission bu ma bu ma neex la. bu bu intéressant mën naa ne daal su ma ko toogee di stress yëpp day dañ. waa no stress dal. Khoudia ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ñu lay jaajëfal. waa Tina maa ngi lay jaajëfal yow tamit kontaan naa trop ci sees bi nga ñu sees waat fii ci salon Oumy Gueye di di nuyu sama sama ñaari xarit yu yaañ yee muy Dolce ak Michel maa leen di def euh, coucou di leen nuyu ah di leen di leen jaajëfal bu baax. di wax na ku bëgg yu yu baax yi da ngay ñëw salon Oumy Gueye ci Teppoor waa ku ñëw ba foofu nañ la defal yu baax ci été bi am na yu rafet dañuy def pédicure manucure pose ongle pose cils teg greffage chignon coiffure de cérémonie ñun daal lépp ku bëgg daal yu baax daal ñëw salon Oumy gis ngeen ko téléspectateurs yi comme ni ko xujja expliqué wee li nag moo nekkoon sunu coiffure de la semaine nee nag neex na ci tàngaay bi li sax nag dafa mel ah, ne nag def ci loo xam te ni si bariwul euh, dafa baax tamit nag dafa xew te nag du la du la sonal ma leen di bàyyi ak sama ñaari doomu doomu penanaar yooyu comme ni ma koy faral di ko waxee saa su ne muy Michel ak Dolce aussi may nuyu ki ki génn fii tey muy ak euh, complexe Kébé Kébé Couture nekk fee xam ci Parcelles ah, Cité ah, lay jaajëfal baax a na jamono gia quy

grave alors képp ku ci bëgg a am coiffure bu nice dama bëgg nga daal di daw gaaw salon bu la gën a jege rawatina bi nga xam ne mooy salon Oumy Gueye nga xam ne saa su nekk bu ma popee saa su ma bu ma nice saa su ne su ma gëf de génnee li nga xam ne mooy ci lu bees moom moo may génneel foofu muy Oumy Gueye waa Oumy Gueye nga xam ne nee naa leen macha allah dafa man bopp alors tey li nga xam ne moom la ma defara ne ci seen rubrique mode et beauté dafa nekk benn ré au milieu alors gis nga mu def cheveux bu baax bi taille 26 muy cheveux muy ré yépp moom moo la koy defar alors képp ku bëgg ci lu nice

nee naa la képp ku ko deful bokkoo ku ci am sa alaaji dafa sa wéy ba mu gudd waaw ji laay wax nag ji képp ku ci am sa alaaji dafa sa wéy ba mu gudd hormis loolu sax jigéen nag mënta ñàkk nga daal def sa yu baax yi alors euh, tey ñu daal di la indi fii li nga xam ne mooy ah xosi xosi yaa ngi nii nag képp ku bëgg am ci lu nice ni dangay daw fële ci ongle mania alors ongle mania boo la fa demee di ngeen am yu nice yu mel nii ku ci bëgg numéro de téléphone mi tamit muy 33 euh, 842 pare gu ma nag ndax ku wax nag euh, wee wax ay xeetu xef wax ay xeetu bijou dentaire dafa xew ndax jigen dafa wara a neex ree boo reetaanee fu mu nekk nii boo reetaanee nga daal gis luy nes na ci sa gemi dafa neex ah alors lolé bolé, boo ko bëggé am da nga ni dem fële ci ongle mania di si fa tamit ñi nga xamné ñoy jaar fi tout le temps muy Aytu Abi Angel, Bitu Armel Olga ah ñoom Roque ñoom Rose duma fàtte ben yon madame Mour Nogay nga xamné mo moo mom salon bobu alors lolé yépp nee na ci seen rubrique li xew kon bop yu bax muy coiffure coiffure pétaw daw la ngeen def ci lu mel noonu bu ñu demee ci xeetu ongle yi ongle mania mais nag ku wax nag yére wax ongle wax nag ah li nga xam ne tey fii laa génn ci vers Sénégal def sama ay strass bu baax jamono ji ni naa ne dama ànd ak ñu jara àndal muy Kébé Couture alors gis ngeen ko Kébé Couture nag nii la génn ax man ci lu baax jëlama li ci suuf ba ci kaw alors couleur tendance vers Sénégal gis ngeen ko ngeen assorti ko ak li nga euh, nice alors kep ku beug ci li nga tenue en plus mieux hein? c'est la couleur de notre télévision la LCS ko xam LCS vert jaune et du rouge vert Jeune baa ngi nii ma ko ru ci wey amako jonge man du kenen alors daw leen gaaw ngeen daal dem ci Kébé Couture nga xam bo le fa demee di ngeen fa fekk ñu xarañ ku ci melni Fonta ku ci melni Anta ku ci melni ni Diallo ñoom Mohamed ñoom Tafa ñoom ñëpp ñoom ñoo nekk fële ci Kébé ci kon ma ngi leen di jaajëfal bu baax baax li mo nekkoon seen rubrique mode et beauté alors là nous allons tout de suite continuer notre euh, notre sommaire notre notre émission préférée alors nak demay jeexal ci li nga xam moy alors vraiment c'est un honneur, hein, un honneur de voir un Sénégalais qui est en train de faire ses preuves à l'étranger. On lui dit juste big up et bon vent à lui. Et juste après, c'était quoi C'était par rapport au Grand Théâtre. Alors, euh, comme elle a tantôt dit, euh, nos grands artistes sont en train de se bousculer pour le Grand Théâtre. Alors, c'est Fatou Gueye la grande dame qui fera son anniversaire euh, très bientôt au Grand Théâtre. Et juste après, ce sera le tour de Hassan Diaye. Alors, tout ça, vous l'avez retrouvé dans votre rubrique People avec Amina. Et comme elle a si bien dit, la semaine prochaine, elle reviendra pour des People encore plus alors, nous continuons juste notre émission avec cette fois-ci, euh, voyez notre rubrique plutôt beauté. Alors, vous l'avez, vous le savez, hein, nena euh, émission li xew tout le temps damay ànd ak ñi nga xam ne ay ndanan lépp lu bax dama leen indil ci sen plateau li xew Aliya nak rawatina lu muy def ci ay xétu nes nessi ku bëgg kanam bu rafet. teint bu nice kep ku bëgg bégal bo rombéré ñu xoolal yow yow loy diwo ak ngay mel kuy nan mew nanu ñu mew de nag ku coo gis mu ngi diwoo Aliya ah da nga yaakaar ne dafay naan meew naanul meew Alia mo fa jaar mais banaan lolu damay béggee ñi nga depuis sank ñu may yónnee ay message di ma woo na len émission bi dafa neex muy Mariama nga xamné ne jamono mu ngi jàkkaarloo ak kon Mariama maa ngi lay def un gros bisou buma ci lolu du ñuy nag ah ñi nga ñu ngi nekk extérieur du ñu via sunutv.com muy Lamine Sar depuis Espagne néna na am de ma mu fan club alors Lamine sar néna nak nag moy président fan club fele ci Espagne ñu ngi lay def un gros bisou de la jaajëfal nag de la wax nga continuer di suivre li nga xamné ne

parfum bu neex moo Diallo moo fa am nga xam ne dafa nekk kenn koo xam ne dafa namul namul dem Dubaï ah Qatar ñoom Algérie yooyu noonu pour indi leen ay parfum yu neex alors buñ jógee ci loolu buñ jógee ci loolu nag demee daal di dugg li nga xam ne mooy suñu rubrique beauté ah Alia ma wax leen les bienfaits de Alia Si vous avez ci li les bienfaits de Alia on va tout de suite regarder aussi une page de pub mais avant de la page de pub nous allons regarder les bienfaits du produit Alia la gamme complète d'Alia et tout de suite ça va suivre. déggal li compa mënta ñàkk mënta yomb sax légui ni góoru compa dégg ngeen ko fum nek ni fi dina toch ndax góoru compa ak kuy góor ak ku dul góor a lu muy signifié lu mu dul signifié loolu yëpp dinaa ko lijeenti tay waaw. léegi nag ba naa may wax ci li nga xam ne mooy góor damay wax ki nga xam ne moom laa àndal nee naa ne dama ànd ak ku jara àndal muy Aliya yéen mi di ma woo saa su naan ma dolce lay diwoo xanaa naan bi ngay bi ngay naan moo garaaw dara de garaaw fi naan moo benn meew café Valia rek laay naan Aliya nag moom lay diwoo nee naa ne dama àndak ak ku jara àndal Touba Bazar boo leen mën ci dem muy bu Sea Plaza bu VDN HLM Sandaga di ngeen ko fa fekk Aliya baa ngi nii lait de corps baa ngi nii sérum baa ngi nii. yéen xale jigéen yi ngeen xam ne da ngeen tàmm jënd benn gàmm jël lait bi di ci def ndox man bëgguma loolu di jël lait di ci def ay glaçons boobu doxul Alya bii ngay jël lait nga daal di jël sérum bi sotti ko ci ba mu jeex yëngal ko ba mu baax nga daal di diwoo jarul dugal ci frigo jarul dugal ci naaj jarul dugal fenn sa kaw table rek nga koy def saa yu yeewoo def ko ci yéen bi nga xam tamit da ngeen di jël lait bi euh, di ko diwoo seen kanam boobu tamit bëgguma ko loolu dañ koy tere. Les de corps n'est pas fait pour le visage dafa am une crème spécialement pour le visage boo leen ko jëlee da ngeen di ko ci tef rek nga daal di jiw lait bi kenn du ko def fii da ngeen di jël seen pommade seen crème ngeen def ko seen kanam boo leen defee ba pare bëgg naa boo leen di sangoo ngeen di utiliser le savon Alia en plus c'est à base de waaye yéen mi nga xam ne ngeen bëggoon la yéen bi ngeen xam ne da ngeen bëggoon foole romb ñu xool leen mais pour yéen ñàkk jëfandikoo Alia dafa wóor wóorul nag ndax ñun bu ñu rombee machallah gars yi dañuy xool kon képp ku bëgg ñu xool la damaa bëgg nga dem Touba Bazar bu gën a jege nga

kep ku bëgg a nice képp ku bëgg a nekk bëgg nga daal di jënd li nga xamne moy lu li concentré Florian euh, ci boutique bu len gëna a waaw waxna ñi nga xamne moy partenaire ñuma andal mais jamono ji fi fu mu ni mo ngi tang dama bëgg fu mu ni commencer di xosiwaate ki def lu ne lool na pour ma def ko na damay and ak ki nga xamne moy goru compa xamne aduna ko amana di bëgg boppam hey nit ku am maanaa di bëgg réew nit ku man yow waaw maa koy bomb yaay bomb bu baax maa koy bërës di ko kof kes di ko xoolal kocci kocci <laughs> kocci kocci daan nga dégg kocci kocci men maa koy maa ko yor kocci kocci maay mbir mi déedéet maam kocci kocci kocci kocci kocci kocci déggal loolu alcool. alors vraiment c'est un plaisir nee naa leen fu mu nekk nii ndaanaan laa dalal ndax ma euh, temps bi sax jotul ci invité de la semaine mais dama ko fi gis rek tiit. Hmm. billaay ma mën fii. mais non bàyyi bàyyi la nga moomay vent rek. bàyyi ma bàyyi la nga moomay vent. waaw vers waaw. Ah. ndeysaan euh, ça me rappelle ndeysaan la verdure de Casamance. dañ may naan. aussi. Euh, dégg euh, drapeau l'islam. Ah. Ah, déggoo ma de. te ma génn na. non vert vert dafa dafa dafa dafa marquant. te ci kaay LCS suñu logo bi vert bi am na ci de yow remarqué wu Sénégal. Ah, dañoo bokk. boo dañoo bokk. mais fay naa la Dolce ci suñu mais di kontaan lool Dolce parce que mhm. yéen a ngi def liggéey bu rafet. merci beaucoup may profité nag ci guddi gi di nuyu téléspectateur euh, nu mu tudda ci LCS yëpp. Mhm. ndax euh, gaañaa ngi leen di seetaan bu baax te yéen a ngi góorgóorlu bu baax a baax a mhm. baax ma ciy profité aussi di nuyu borom kër gi. Euh, ki nga xamni mo jité lepp lépp di tijaan di sunu rak di sunu xarit euh, di ko xamni vraiment ku ku nangu gorul la euh ñong koy ñaanal sas bi oyof ss gëna yaatu. ca kaw ca kanam ci lu bax dégg li ëpp na mais xam nga lu may def. Hmm. dama nga fay pause daal di eggali kii bi maanaam ndax maanaam bi fu mu ñëw dafa sax ne. déggal loolu. kon boog maanaam. kuru jees maanaam. abi fay maanaam. maanaam yéen bari.

man dañoo jàpp ku am personnalité la waaw su di baax voilà. gis ngeen ko leçon a maanaam maanaam wax dëgg yàlla kenn du ko fàtte de. te boo ko tegee sax daa mel ni da ngay foog ne démb la génn. waaw Dolce xam nga liggéey. Mhm. suñ ko tegee ci yoon. dëgg la. Euh, mën na fi nekk ay ati ati ati exactement kenn du soo ko dégloo day mel ni démb la day mel ni démb la woon te donc loolu je pense que liggéey bu wóor rek moo wóor mhm. ndax man j'ai l'habitude su may préparer samay musique mhm. damay jël sama temps. waaw gis nañ loolu gars yi jàmbat nañu jàmbat jàmbat jàmbat waaye bi affaire bi génnee ñëpp xam nañ lan moo taxoon dégguñu ma. non lii dafay ëpp sax te bu ci euh, karamee sax dinañ ko gën a élargir waat ndax fu mu nekk nee naa dama laa bëgg a topp nga dama lay dugal xam nga nu ma lay dugalee. Hmm. da ngay déglu rap. Euh, waaw dinaa koy déglu nag. ci rappeurs yow kan nga ci xam. mais ñëpp mais presque man rap bi muy judd sama kanam la ah, mais am nga ay ay relation ak quelques rappeurs dañu ñoom euh, Awadi. waaw Dégati. Mhm. Baxaaw. waa kay Carlo di euh, ñoom su ma limee dafa ñoom ñoom Fou Malade. ñoom Simon ñoom ñoom ñëpp. la crème ñoom samay boy lañu. waaw teg ci rappeurs yi sax ñoom xam nga chaque année dañuy def benn événement ah buy rappeur contre mbalax maan. waaw yéen saa Simon crash na ne mbalax dee na. xam nga ñoom. Mhm. ak mu jot ñu dóor leen dóor yu metti gis nga man deux ans yi laa raté mais dégg naa ren. Euh, waaw xam nga ren maay capitaine équipe bi. yaa capitaine bi ren. waaw ren maa nar a porté bi parce que sànq ba xaw woon ma. waaw di ma xamal ni le quinze. Mhm. le le quinze oui le quatorze juin. le quatorze juin waaw mooy match rapport contre ñoom. non kon bi paa yaa jël ay lim. waaw di samay samay fer. grand point à faire. non Fallou nar ko c'est-à-dire la balle

parce que man ancien yëpp naa leen jëli. awa di moom bu ñëwee de moom duñ dugal. ancien yëpp naa leen awa di xam nga fu nekk nii daw moom du ko mën. naa jëli Omar Pène. Hmm. naa jëli Thione Seck. ñun ñëppay naa jëli Kara Ouza droit. ñëppay joué Ismaïla Lo. non Moussa Ngom. Hmm. booy nga la. xam nga daaw dóor naa moom déjà pour laajte bal bi dina jël temps. dina nekk fa naa eh, eh, eh, ba ba bal bi waay. xam nga daaw daaw jéeg dóoroon naa leen ba naari balaa ñu koy jox bal naari recruté ma yóbbu ma Maroc moom ma fay joué ji mais ba ma ñëwee góolu Maroc ba xàmmee na ma parce que mu dóoree bal bi bal bi mu ne kañ la jàng ci ci ci ci poto bi góor bi dina yaa rasulullah ma ne fii y'a pas de yaa rasulullah je prends ton nez tabaken lay jël <laughs> wax dëgg yàlla ci loolu la ñu jugee ndaari dem seetaani ah jugee ci loolu nag duma fàtte tamit ñoom euh, Sidi Ahmed mbay ah Sidi Ahmed mbay nga xam ne fu mu nekk nii mu ngi suivre émission bi euh, via sunu tv point com moom mu ngi nekk ci Facebook bi di ñu di ñu big up bu baax a baax du ma fàtte tamit Espérance Sarr ñoom de Kebe kooku moom c'est la grande cliente de Dolce Strawberry maa ngi ñoom ñëpp maa ngi leen di jaajëf bu baax a baax alors euh, Fallou Oui. Yo, eu nga vidéo bi alors ñom Simon hein c'était bien il y avait du beau monde, il y avait du beau monde. Euh, en fait, c'est les jeunes yo xamni tay ñoo ngi góorgóorlu seen exactement oui. et puis ils ont dañu révolutionner la musique euh, hip hop euh, rap mhm. donc dañ ko révolutionner parce que ils ont compris très tôt que nous léegi affaire c'est du live voilà. Donc euh, récemment, j'ai vu l'anniversaire de Simon au, Grand, Théâtre. C'était une réussite vraiment totale. Quoi. Mm-hmm. Mm-hmm. Et puis je pense que Yenen Guigno et Yenen Nyom Awadi, c'est un mm-hmm. anniversaire. Oui, je vois que tu es bien renseigné, tu hein, milieu hip-hop. Je vois ça. Et puis je le suis de très près très près parce que mhm. dañ ma boole seen bopp quoi. d'accord donc euh, ñu ko ci melni Baxaw tay sama boy le sama xarit la dafa mhm. yagg mhm. donc musna def ak ñom sax mais war nga ko yedd pour mu tak jabar de. non dina tak dina tak war nga ko yedd de. Ah, dina tak war nga ko yedd dina tak dina takk. sama sama rakk naa ko yedd. <laughs> amul Mais benn jot yomb quoi. ouais exactement vraiment c'est des c'est des gosses yo xamni vraiment euh yalla yalla yalla xeeb quoi. amin amin vraiment parce que gis na ni.

Euh, ci anam bu gën rafet. bu gën mhm. nice quoi. te na naa porteur de voix sax du ma nekk il faut nga nekk hip-hopeur pour nekk porteur de voix wala nga nekk balahman, képp kuy artiste te ñun mi nga xam ne ñooy animatrice on fait partie aussi des porteurs de voix. parce que bu ñu toogee jàkkaarloo ñu ñuy seetaan yenn saa yu ñaax leen ci dara. vraiment vraiment il faut que ñu xam ni. Mhm. peuple sénégalais bi. Mhm. nangul nañ leen li ñu doon. dëgg la parce que parfois se justifier. Euh, warul tax parce que ni ngay waxal. Mhm. sa askan lañu. deug la askan wowo papa yaangi fi. yaay yaa ngi fi mam yaangi fi maam yaa fi mhm. il faut que ñu respecter len respecter sen bop moy respecter kilifa yi nga xamni tay tey ñoo ngi tok bu ñu yaakaar ni dégluwul len mhm. parce que rabbi en général deug gu xata fay genn mais amna peut-être seen style la. foog nit ñu comprendre ni aussi tamit dëgg benn dëgg du neex. exactement voilà mais nag <clears throat> dëgg bi mën nañ ko modérer teg ko ci yar. ak i teggin te te du wàññi nit ñi dara. waaw donc man foofu laay waxee quoi mhm. dans la mesure ko ñoom it aussi. Mhm. ñu war a xam ni ay frères lañu. Mhm. ak ay sœur ñoo bokk ndey ak baay. waaw ñoo bokk benn pëpp bu ñu servir. ñoo bokk tamit benn monde bu ñu servir. donc buñ ko rafetalee tey bu fi tubaab doon ñëw tey. am na benn rappeur bu ma gis en France. boo xam par rapport ak correction respect am respect bi. la ko tubaab bi jëlee adopté mhm. euh, je pense que su ma juumul di c'est passé ou quelque keneen quoi. Mhm. dama ko gisatul sax léegi ci ci ci scène bi. mais kooku les Français l'ont adopté par rapport à ni correction bi mu am. ak mhm. yar ak ni mu tegginee. par rapport à sa tenue quoi. donc mhm. ñoom aussi tamit nekk rappeur war warul tax nga war sol ay jëngal. dëgg la dëgg la wàcce lii wàcce lii parce que loolu. warul tax sax nga tilim da ngay il faut appeler le chat par le chat. warul tax sax nga tilim voilà ñoom nag génération boobu ma lay wax dañu. comprendre man je trouve que est ce que du loolu sax moo taxee ci Simon sax gisoon naa ñetti diversité bu mu indi woon parce que nee naa leen grand théâtre concept la woon. concept parce que ñëw na ci costume ñëw ci euh, trois

C'est mu moi France mooy maa ngi koy dégg rek. mais moom moo di naan ah apana moo les boss apana moo les boss. waaw temps yii nag daf mel ni mooy bomb ah. bu baax. mais bu mu euh, ñëwoon fi dafa ne à ah, Dakar c'est vous les boss. Ah oui ben, On va suivre ça avec toi, comme ça tu vas ben, découvrir avec euh, certains téléspectateurs qui ne connaissent pas Youssoufa. On va tout de suite regarder le concert de Youssoufa. Il était de passage à Dakar, oui, et c'était au 6 On revient tout de suite euh, sur le plateau de l'Iréo. Tout de suite, hein, Youssoufa au 6 avec Dabrens et Simon. Et on revient sur le plateau de l'Iréo. sur le plateau de li alors ko le très grand concert le big show hein. le big show au CICES avec euh, tous les élèves de Yalo que je fais un gros bisou alors képp ku nekk Maris Jean Mermoz vraiment je vous fais un big up les gars alors pour ceux qui sont en train de préparer le bac je vous souhaite vraiment bonne chance pour ceux aussi qui préparent le BFM euh, idem hein, je vous souhaite bonne chance alors révisez bien mettez-vous à fond et sachez que demain vous devez être euh, la relève alors faites votre maximum alors,

Mhm. mais je pense qu'il est très aimé à Dakar. Hein? oui très aimé Et un peu partout hein. un peu partout ouais, ouais. parce que en fait euh, le rap français bon quand même moi je pense que mon ami wax ni deuxième. Euh, oui ci oui, oui. ça cartonne en ce moment déjà avec Session d'Assaut. Euh, la fuite La bouba et puis ils sont très suivis par les Sénégalais et je pense que xale Tay. tey. Mhm. ñii ni, ñëpp ñoom ni, ak génération. exactement tu vois donc mhm. si.

fii sànq loo ma jàngal sax. Hmm? affaire boobu non affaire boobu dafa ñëw sama bopp xanaa. non yow ko da nga ma non dama ko créé mais bu ma la defee xos. ma alcool la. <laughs> doy na waar doy na waar lool lool lool <laughs> alors Khady Kébé Khady Kébé nga xam ne dafa nekk sa benn fan Kébé Couture moo génn fii. waaw mais bi ma ko nee Fallou Dieng laa invité dafa kontaan. vraiment ñu ngi koy def un gros bisou. pour ñi nga xam ne depuis sànq ñu ngi may woo Dolce dimbaluñu rek jox na numéro Khady Kébé c'est le 77 34 417 42 34 ñu dugg nag ci cappaandaw ma daal di nag ki nga xam ne nee na mooy góoru compa góoru compa nga sax yow. maa la ko virus defal ndànk. góoru compa nga yow euh, il faut ma wutal ma boole la ci xam góor ñi. ñooy compa man may lan mais jigéen ñi nag ñooy compét yi. compét waaw yow yaay compét bu mag bi. waaw Fallou mën nga wax loolu. yow yaay compét bu mag mën nga frustré. non frustré wu ma la dama la wax li am parce que compét yi. compét ñoo jigéen ñi compas yi ñooy góor ñi. Moussa yow yaa ma dàkk compét waaw yow mi régisseur bu mag bi nekk ci biir entreprise bi yaa dàkk compét ñëpp waaw jërëjëf. kon à partir de tey da ko woowee Dolce Dolce compét. Dolce compét. waaw yow nag yaay compas. man nangu naa nekk góor a amul problème. yow nangu nga ko. mais man nanguwuma ko. Hmm? man nanguwuma ko. te sam papa mu ngi lay seetaan bu ci kaname dina ñëw ba fii. Eh, defante ko ak yow. sa doom tuddee naa ko compét bis ni ki tey. <laughs> mais papa qui mu les frustré papa sa taal ñu ngi ñaawul alors au plaisir des téléspectateurs alors vous l'avez vu nee naa leen artiste bu mag on ne le présente plus mu nekk nag Fallou alors aujourd'hui il est spécialement là sur le plateau de li xew def nak spécial bu neex nee naa débuté émission mais damaa namoon rek daal di def faax mel ni jéeg bu nekk ci biir këram moom laa def ni jàkkaarloog mom. léegi avant ñu dugg nak ci li nga xam ne mooy waxtaan parcours bi mu daal wax li nga xam ne wax

neex na neex na loolu moom mais vent nga xam ne jamono ji nee naa leen mooy lëmbee dëkk bi dafa ñëw rek daal di bomb daal di ñëw rek bokk macha allah ndax nee leen fàllu yenn saa bu nga ne moom kii ci la la ne waaye bu dikkee lu muy def ci lu baax alors li nga xam ne mooy sortie officielle u moom vent damay ñëw ci li nga xam ne euh, képp kuy ndaanaan nee naa la boo fi ñëwee dañ la koy laaj ndax c'est très beau naa di bégee ki nga xam ne mooy suñu artiste mais yenn saa fan si fi day bëgg a xam artiste bi jaar jaaram Euh, c'est en enfance Fallou ban genre nga déjà yow ku ku ku ko man cool ah ku ñew rek non dama Je nak xam nga man man sax d'accord parce que dama suis ma nekk xale mhm. ku ma parce que beaucoup ci famille bu ok famille guerre pire là. 7 8 sama famille famille maraboutique laa bokk ah. d'accord wow, donc euh, ma nee famille maraboutique famille Tafsi Ibrahima nyang ca Ndar. ci mhm. sama walu keur yaay. ci mhm. sama walu keur baye tamit Njogo may Pekes til makha degeli ba Touba donc euh, manam si ñaari côté yépp ci nday ak baye yépp mhm. dama bok ci famille maraboutique. ok maanaam famille bo xamni tay euh dañoo dañoo judd fekk suñuy maam. nek ay. ñu am d'accord donc loolu ci descendant bobu la mhm. waaye nak xam nga nit euh destin. dafa don lo xamni dafa je suis ak borom dafa foor mhm. ma judd ci yaru ci mag ci don nak xalé bo xamni bama tamit ñu niñ ma a mhm. ma école Bolé, école bi donc euh, def may def sama vers les années. Hmm, sori nga ci euh, ci jàng bi sori nga ci. dem ci ba seconde début. seconde quoi maanaam mhm. c'est-à-dire c'est amoon naa ci niveau secondaire quoi. ok après tu la bàyyi. Mhm. defi apprenti tailleur. ah oui. oui j'ai été tailleur. ah mais Quoi, kon yan coupe nga doon def sax yow. man ji lii ngeen di sol. lii rek découpage yi sax yëpp mën naa ko ñëw. ndax may na. waaw waaw man xam naa kon semaine prochaine tey Hi, hi, hi. <laughs> <laughs> xam nga man lu mënul nekk rek laay laaj. waaw mais waaw mën na nekk ah mais seulement est-ce que. est-ce que est-ce que mën na nas puso. Ah, boo ci nekkoon benn une semaine deux semaines laa façon man ku sol lu rafet mën naa ko xam quoi. Ah. parce que jaar naa ci habillement quoi. mais tey waxoo ma dara kon rafetul de. non tey li nga sol dafa. dafa buzz buzz naaj donc rey nga bu rëy fii ci dëkk bi. Ah. da nga no na verre bii. waaw non non non kii ba maa ngi gaañ ni. yaa ngi ciy gaañ de. <laughs> ba defal la ci perlage bi. waaw waaw non dafa assorti. non Sénégal rek nga sol. non Sénégal la sol Sénégal rek nga sol. <laughs> à domicile la xaw ma à l'extérieur xaw à domicile à l'extérieur. <laughs> baal naa la kon daal def nga tout ci tailleur hein def nga couture. waaw def naa couture. Mhm. Euh, ñaata année ñaata année nga ko def yàgg naa ci ah parce que mun naa wax ni euh, diggante bi may arrêté école euh, ak bi may jàng métier bi ak bi ma ci nekkee. def naa ci ay 5 années. cinq à six ans mhm. donc ma jóge fi nag après ci la voyager dem à l'extérieur. ok boobu j'étais tout

amul. kon daal vrai de Dóor waar def nga ko. def naa def naa guerre yëpp daal. guerre nga guerre yëpp mais 14 18 nga fekkee woon. hippodrome wala fekkee nga ko. antam baxal. yaa ngi hippodrome boobu xam nga ko. antam baxal. xale laa nag. grand prix chef de l' état damaa waane rek waaye xale <laughs> grand prix de l' état grand prix de l' Amérique. déedéet. ah. prix yëpp yooyu yëpp def naa leen. Hmm. Madagascar. Sinaï. guerre yëpp laa def daal. non guerre nga yëpp. donc euh, <laughs> yàlla def nag météo yëpp def naa ci. mais yooyu yëpp xam nga. li ñuy wax daan doomu aadama toujours da ngay bëgg benn affaire. mais doo am issue boo ko mën a génnee quoi. exactement bi ma nekkee ci franco arab ci la ma. da nga ci la ma virus way dugg mais man chanteur arabe laa woon. chanteur boo xam ni bi ma nekk xale noonu maa daan way ay cinquante personnes di ma aw. parce que troupe mhm. théâtrale arabe la woon. Mhm. dama daan way ay reprendre ay morceaux égyptiens yi waykat yu mag yi. Mhm. di ko reprendre di way. mais talent way mu ngi ci man mais xawma ni won ni un jour un bon jour dina ma sene chanteur bu mag bu ñu déglu ci Séné ci aduna ok d'accord mhm. donc euh, yalla di def di def di def bama ma xamanteeg benn libanais. ok sama ben mag bu ñuy wax Pape An yóbbu ma ci Ali présenté mako mhm. may dem conservatoire muy dem conservatoire di ma yóbbaale. Mhm. Ali aussi Ali HM tam ma xam ko jamono ba may ne Sandaga. Bin ñu ma mon temps tam c'était un homme orchestre. d'accord ma koy fréquenté. Mhm. on a fait des morceaux ma koy denc neub ko nëbb di ko nëbb di ko nëbb. Mhm. sa way bi ma njëkk a way c'est ma carrière sama yaay laa ko way. ak la la en maquette. Mhm. ak Ali HM. léegi nag ben producteur doon fréquenté Ali ñëw fa des maquette bi quoi mu ne ko kii di way kan la Ali ne ko kii sam ben xarit la buy ñëw fii bu tudd Fallou mu ngi dëkk nekk fi sànd gi mu ne ko kii dama koy produire noonu lañ ma produire voilà noonu lañ ma produire ma dugg ci musique mhm. euh, bi ma ci duggee itam nëbb naa affaire bi suñu waa kër suñu waa kër rek nit ñi ñoo ko déggandoo ci rajo bi ah. may continuer di dem di liggéey di def enregistrement di liggéey mhm. ba un jour émission boobu la wax ñuy wax les talents nouveaux te Michael Souma daan ko animé animé ci lañ njëkk a sama morceau

Euh, sëriñ laa la tuddee kilifa laa la tuddee man balaa ma doon am lu ma sedd sedd sama xol nga woy sëriñ Touba te soo ci bëggee am ndam looy woy ci nag jiital sëriñ Touba waa këram donc ñaanal ma ma defaat beneen album way tuddee ko boromam mais album boobu laata muy génn paa bi génn na àdduna wàcc liggéey daal donc ma xam ni teg na ma ci yoon hmm, teg na ma ci yoon te ñaanal na ma ci moo tax album bu ma mës a génnee gis nañ ni yàlla toujours daf ma ciy defal sutura parce que barke boobu daf ma topp ba léegi ñaan googu voilà ñaan googu daf ma topp ba léegi comme ci loolu rek la dem ci mouvance mouvance boobu la dem comme dégg ngeen ko ki nga xam ne mooy seen artiste préféré ki nga xam moom la gàmmoom ngeen a def na lu ne ah, c'est bien beau ngeen ñu jàkkaarloo si fii xoos lu nu tuuti. waaw lu mu dund am na jaar-jaar balaa moo yegg see fii mais xam nga émission li xew ñun saa su ne dañuy bëgg di bett suñuy invité. noonu la man fu ne laay génn ci fu nooy rek ak fu fu baax.

Música see. como me vão. nii man li may gën a neex li may gën a reetal mooy iyu iyu soo bu bés ko iyu iyu. est-ce que boobu amoo mais bi ma fekkee mooy mooy des day monté jamono bi may nekk tennis club di jouer tennis. waaw Tengs nekk xale bu ndaw. waaw c'était en Est-ce que ma ko doon defee non? di wangetu non. waaw waaw waaw am na ni ma ko doon defee bu garaaw. <laughs> man en tout cas je suis très ému. oui et très surpris aussi parce que man am na clip yu bari tey gisatuma leen woon ah. waaw parce que clip aussi si ni alal bu si ni. mën mm, mën def loo man wax loo mën yaay. Mhm. Euh, bu ci mel ni aussi bëgg ndawal. waaw bon ay clip la yoo xam ni man gisatuma leen sax si télé yi ah. instant jaaxal na la de ñun. te ci télé bu mujjee judd ñëw rek am ko. waaw xam naa da ngeen dem si archive yi jëli ko. vous avez droit à ça aussi. ah vous avez droit le yàlla bu nu tiim xam ne demuñu jëli archive. Hmm, franchement. non la suñu secret que ndax man ak samay ay monteur caméraman danoo complice ba nga xam ne bëgguñu kenn ku nu pirate ci loolu. Ah. amul artiste bu ñuy invité ci télé ñu lay génneel say archives. ah oui loolu c'est important parce que quand même bon ça rappelle un peu des euh, beaucoup de souvenirs quoi. exactement parce que euh, xam nga man suma carrière. Mhm. Euh, album yi dañu tegloo. te da ngay gis benn album am am trois à quatre clips. Mhm. donc defe naa si ñu ëpp vidéo fii ci. ci sama génération ci la bokk parce que même compil bi. maa ngi fàttaliku monteur bi bu ñu def loolu la mën a wax mu ne ma macha allah Fallou dafa bëri woon clip. waaw mais balaa dugg nag ci clip bu nekk nu mu demee woon man damaa bëgg ñu nga wax ma anecdote ci clip bi bu ci nek réalisation bi tournage lan la lay ko ban affaire bo xam ne nga ci tournage bi. et que tu as envie de partager avec tes fans. ouais tout à fait xam nga tournage bi moom. Mhm. en général album boo koy ni sax. surtout nga door débuter nak ci euh, milieu musical bi xam nga sooy doog a ci musique da ngay fugg bi ngay andal <laughs> man surtout suma xolé xoolee clip clip bi bi. <laughs> clip bi ma takk karawaatu der. man de moom eppal ëppal man bobu def ma yéem clip bobu mom mom lay bañ a gis moom.

Kouthia man la imité ba siw parce que man bi may ñëw ci musique fulaar laa doon takk takk ay kii lu ne laa doon takk nag pour ñu et puis damay wat sama bopp ba pare coiffé ko ba bopp bi def nii ma jël fer passé. déedéet ba bopp bi ba bopp bi ñu <laughs> ne foo ma fekk rek bopp bi bopp bi ñu ne. kon yow ay eh, yow ay xeetu dabalaa yooyu yow bi ngay dabalaa kenn dabalaaw. man li ma doon watu moom la Dakar yëpp doon watu.

<laughs> man daal dama jékki-jékki salle bi ñëpp di raam génn <laughs> ñu wane ku caa ku caa tëdd suuf di pédale tànk yi quoi. Eh, mun dëgg wane nañ ko léegi nii. mooy bi ngay tëdd ci suuf di pédale sa tànk yi. ku caa ku caa xaw na ma rey ci at yooyu. non donc euh, affaire anecdote yooyu xam nga déjà nga ci am quoi. may rectifié wu di rectifié parce que imposé wu naa ba nit ñi xam ma. léegi nag man ne wangetu bi moomay daan ma ma ma fàttaliku <laughs> ma delloosiwaat nag ci facette euh, normal bi nga mhm. xamante ni. dem naa ba imposé wu ba nit ñi xam ma. ma doog wan nag nit ñi. Mhm. le vrai mais Fallou euh, tey boo seetaanee clip bi <laughs> caméraman yi fu mu ni nii ñu ngi dee ndax vidéo bi. mais non xamna gis nga gis nga bloqué. paase bi paase bi ñu ko. gis nga karaw gi dama ko daan peñe ba mu né ñedd ñad déggoo ma de. <laughs> mais c'était ton style. xale yi tey ñu ngi nii di def ay dabala di def ay pompon ay chouchou lu leen di ko créé. loolu bi ngay créé kenn créé wul. vraiment mais yaa mieux en plus dogguma la y a mieux parce que dama gis ne ci clip bu nekk ak pas de danse am. waaw parce que iyu e iyu e bi moom. boobu moom man daf maa neex teng sa dee bonde bi moom man man man mu nekk xale wangeetu bi moom si doon daaneel. moo la ci doon waaw. am beneen boo xam ne euh, am na yeneen am na yeneen. fii ci am na am na conc. conc bi voilà conc bi créé na fi ay buzz. du buzz donc euh, sooy xool aussi tamit wiccaxu créé na fi. exactement nekk watatu xew na fi. Mhm. wiccaxu xew na fi euh, brigadier sax xew na fi. brigadier amone temps soñu musan fek fekk cosaan joué. Mhm. sa waay amna numuy démé muy demee armée la ni def ñëpp di maj lélé man len buntu cosaan. Mhm. ñu daw jubal ñëpp ñëpp jubal sen loxo buntu cosaan wiccaxu bi melni ay. wa mais inspiration bu yeuf fallu tamit foo ko jëlee donc loolu man je pense que j'ai été toujours j'ai été toujours inspiré par le mhm. peuple sénégalais. parce que man inspiration brute bi may am ci nit ñi la koy jëlé ba ci slogan yeeg. yi nga xamante ni mooy mooy créer buzz. waaw lépp yi nga xamante ni nit ñi dañ koy tooñantee di ko fowantee te mu nekk ci gannaaw xel te gars yi duñ ci bàyyi xel man yooyu dama koy dund def je mhm. di ci liggéey. ba nga album bu may en général. Mhm. je connais bien les Sénégalais. xamna xamna luñu bëgg. Mhm. xamna lu leen mëna amuser. exactement donc euh, réussite bobu lama ma suñu borom défal mhm. ci biir production yi may def yëpp parce que so xolé premier album. ba tay ji maa ngi 20 vingtième album sur le plan local. ak sans compter album international yi. macha allah ngi sant le peuple sénégalais c'est pas dama leen amel njukkal man fa bu baax bu baax parce que dañ ma fat ma adopté. Mhm. ci seen xol. te loolu je pense que moo gën sax alal. alal exactement. parce que. Mhm. nit ñi ma bëggal seen bopp. Mhm. ba pare adopté ma. tey ma toog lu yàgg dégguñu ma mu leen di metti tout ça. li ma leen tàmmal la. tout le temps. nga di génne donc album yi ma génne yëpp nag bu ci ok man ci stick boobu sax donc euh, à mon temps effectivement mosuma bàyyi yoon boobu. Mhm. album buma guenne amna ben type wala ñaari type wala ñetti type dëgg la donc lolu euh, je pense que liguey bu yag la damay wax ni sax nibbal la quoi ndimbalu suñu borom la. Mhm. du sama ngora du len mais aussi amna lo xamni secret liguey la. Mhm. dama musa nango liguey sans bàyyi sans bolé ci ciow sans bolé ci bruit. donc album yëpp bu ci nek tay style yi dañu wute. Mhm. li commencé soo koy xool bi DLC commencé ba léegi album biri biri génn na fi album weex bët génn na fi album euh, euh, euh, prestige génn na fi double mhm. album. Mhm. album gauche génn na fi. gauche droite xam nga yaa ngi fàttaliku jalgati. waa jalgati jalgati mel. loolu yëpp jalgati comme ni fecc yi xewoon noonu la fi xewoon. <laughs> exactement euh, ci la ñoom Papa Ndiaye lancé dogguma la sax. Mm. ci loolu laa bëgg a ñëw ndax nee naa la tey man dama lay topp ba nga sës. Mm-hmm. lépp laa bëgg a xam ndax tey fan si ñoo ma yónni. dëgg la kon mënta ñàkk ma lay laaj ci lépp. Mm. Euh, sànq nee nga tout le temps certes c'est vrai ñun sax gis nañ ko. Euh, album bu nekk dafay ànd ak stylam. ànd bu nekk dafay ñëw ak feccam bu bees stylam daal stylam bu bees mais tamit ci. Euh, am na tamit ay artistes yu bari jaar nañ ci yow. deug la bana tay nit ñi di len xam. Mhm. parce que ma ngi fàttaliku man euh, bi may ñëkk gis ndey Gueye di fecc je pense que c'est clip la woon. Mhm. ndey Gueye si je me trompe pas. voilà donc tamit ñeneen ñeneen. je pense amona na ay ñoom Papa mën na wax ni gis nga tay bo limé sa da ngay joom exactement parce que toute la crème musicale sénégalaise. Mhm. genn wàll nouvelle génération bi ñi fi njëkk a siiw. waaw. ma ci man jaar na ci liggéey na ak ñoom waaw donc euh, en commençant par Papa Ndiaye Thiou ñoom mhm. ah ñoom euh, Amady Badiane Ameth Thiou ah, euh, ak Yéli Yéli Thioune mhm. ah ci côté jigéen ñi ñoom Oumou Sow sax tëgg feccal nañ ma en 2001 clip mhm. ñoom Gagne Siri ba law bi ni mu ñëwee l'enseignement ñom day donc nous euh, ci lawbe lañu carrément donc moi je pense que tay ñom ñep ñu nekk sumay rak nekk sumay xarit tamit bu ni tamit euh, am ci fier quoi trop parce mhm. que yalla mënoon na ko jaarale ci keneen. exactement yalla mënoon na ko jaarale ci keneen waye man tu sais dama nekk nit bo xamni dama généreux. ci mhm. scène. Mhm. dama généreux. j'aime bien partager la scène ouais, j'aime bien partager la scène avec mes mes frères. Mhm. avec mes sœurs aussi. donc euh, lolu xalé yu bari tay ba ci ñom coppet ñom ñep coppet mom dafa nek ko xamni dafa bok ci. ci man dafa bok ci ma nek suma jarbat ñu yaral ko suñu bop ba tey ji mu nekk tey sar bu mag fii Sénégal oui macha allah donc dañ koy ñaanal yàlla gën ko yokk gën ko mhm. barkeel ak ñeneen nañ ñeneen ñëpp quoi wax dëgg yàlla sans compter nag les jeunes musiciens yi nga mhm. xamante ni aussi à l'époque kenn ñemewuloon boo daan def album dangay ragal jël xale yi ñu ñëw tëgg encouragé naa jeunes musiciens yu bari mhm. yoo xamante ni tey euh, man maa tax ñu gëm seen bopp parce bunjuk ku jalur grand musician muda falas mhm. album, Donc, itu. Donk mandi bunjuk DLC, moyen dah c'est entre 18 à 25 ans. tahun, ont kalau yang dahulu am fugu begeligai di que nag tëggal ma loo xam ne aussi tamit daf ñu daf leen màggee woon. dix ans dafa leen màggee donc euh, ba jeunes yu bari tey développé ci tey di def ay arrangement nañu ay grands monsieur tey de la musique sénégalaise en tout cas vraiment donc quoi. fierté la fierté la ci loolu laay jeexal fierté la bu alors vous avez suivi avec nous cette euh, cette très beau hein cette très belle compile de Fallou hein ah tey nag ñu indi woon leen li nga xam ne mooy vraiment ay souvenirs ci émission alors quand on dinaa di jeexal ak li nga xam ne jamono ji wax leen

ci yaram ba lay fonctionné aw ma weede waaye xam fu nekk nii ëmb bu ma la doon xosi di nga ko sentir waaye mu daal di leen dafa doy waar ini ini ini ini may seewaat problème am na de non problème amul c'est que yow xam nga gars yi daajal leen ñu ko waaye voilà xaaral sama sama sama sama sama sama gars yi baax alors Moom et Vent Moom et Vent nag waaw Moom et Vent moom moo nekk le le mooy sa titre album bu bees bi voilà xam ne franchement gars yi apprécié ko c'est quel waaw ban message nga ci bëggoon apporter déjà. moom vent mooy titre al nouvel album bi. Mhm. donc mu nekk euh, titre boo xam bi mu génneek léegi le 8 laa ko le 8 waaw le huit mai passé donc ça fait 10 jours bi mu génneek léegi. et gis naa ni ko peuple sénégalais bi accueillir. waaw gis naa aussi tamit encouragement jot ci encouragement yu bare bare bare bare ak ay félicitations. waaw et lolu liko waral moy dañu tok jël sunu temps liggéey ko ci anam bu bu sel anam bu bu am solo. Mhm. donc euh, momé Vent. waaw maa ngi ciy wax naan maa ngi ciy wax naan. Mhm. xam nga momé Vent fi ma jëlé mo wax la histoire bi. voilà loolu la bëgg. bu njëkk bu ñu football. moy li ma doon expliqué sànq en début d'émission mhm. euh dila wax ni bu njëkk bu ñu football dañu jël souf def ni <laughs> fu souf ci fété rek ñoñu ñoo momé vent bi. waaw manam yow équipe bi day en position de force. Mhm. benen bi nek en position de de faible. parce que dañu contre-vente. Mhm. mais lolou nak la jël positive ko pour xamal nit ñi ni kat dans la vie. Mhm. certes il y a des gens qui sont forts. mais aussi il y a des gens qui sont faibles. Il y a des gens qui sont célèbres. et y a des gens qui sont méconnus. méconnus donc euh, maa wax ni képp koo xam ne célébrité la way bi bàyyiwu la. waaw képp koo xam ne tamit. nit ñi xamuñu la. nit ñi xamuñu la. Mhm. way bi bàyyiwu la. Mhm. képp koo xam ne tam da ngaa am sa morom ñàkk. Mhm. way bi bàyyiwu la. ki ñàkk ak ki am. képp koo xam ne da nga nekk ci pouvoir way yu bàyyiwu la. képp koo xam ne tam da nga nekk ci en position de faiblesse. te gëm ni ëllëg mën nga nekk en position de force way yu bàyyiwu la. donc way bi dafa touché. société bi. waaw way bi dafa ñëw à son heure parce que diggante 2012 ak légui li fi xew changement bi fi am bari na. bari na trop. donc may may may may lancer message. Mhm. message bo xamni thème moral la. Mhm. thème la bo xamni aussi tamit. du way bi sax ak fecc mi mhm. mais message bi ci nek ah loolu bëgg nga ah, ñëw message bi ci nek mom la lay wax ni ni loolu la exactement exactement parce que nit ñi war nañu délo seen xel que ni yalla moy maye waaye moy xañe bu la mayee succès waaw gëmal ni ëlëk mën na ko nangu. mën na ko nangu. ndax affaire bi ay temps la rek. tendance la sax lay wax. non ay temps la tendance la. <laughs> tendance la temps la. te nit ñi dañuy jëlaate. waaye xam nga loolu. waaw dañuy bu eh, ñu la dogalee tubay bu la tugee buñ ñu la dogalee tubay ngemb la lay xaar déggoo ma de donc euh, c'est important way bi. Mhm. na ci nit ñi bàyyi xel na ko ñëpp gën a déglu te xam ni. Mhm. woyu ma ko tamit pour les musiciens. Mhm. parce que way bi.

mom la gis ni bu gis na déjà que c'est 9 titres ah c'est 8 na titres là 8 titres la ba dafa am intro bu ci nekk ñaar yoon intro ah ñom momé vent waaw donc euh, way ran naa ci hommage euh, Serigne abou bu Serigne Fallou di sunu Serigne sunu xarit ñu ziar nak bu mm. baax a baax di ko ñaanal yalla yalla baye ko fi ba ci kanam ak kanam ak kanam ak kanam ndax weeru kasu rajab lañ nekk mm-hmm. te album bi dafa génné à son heure à son heure kasu rajab kan moy borom kasu rajab ah xoolal rek ah Serigne Fallou Serigne Fallou moy borom Kazu Rajab donc album bi dafa guen à son heure ma rendre ci hommage nag Khalif, xalifaam le 26 mhm. donc ma rendre ci hommage Serigne Abou Fallilou waaw aussi wayat ci benen way bu ñuy wax Makiyo mom la la bëggoon laaj sax waaw sunu président la ci la ci rendre hommage ah, ak samay xarit waaw ndax euh, dama yàgg ak ñoom mhm. te

donc euh, moom it gis ngeen ko ma ci gërëm ñoom Aly Ngouille Ndiaye ñoom mhm. sama jigéen ñoom Tabara Maar ci waa ak ñeneen ak ñeneen mhm. donc mu doon woy boo xam ne tamit bi mu ñëwee les Sénégalais an dama annoncé woon la couleur avant euh, album bi jigéen génn donc euh, amna tamit nit ki. nit ki mafit mafit mafit moom xam ngeen ko mooy wër di xeex rek. ba nga jot mu teud moy ah, ah bari na fi de. donc euh, mu nekk album bo xamni mu nekk album bo xamni ça a été très bien travaillé. en tout cas ça touche tout le monde voilà hein. mm. kuy dund musique képp ku bëgg ah ay xeetu mbalax yu baax yu neex yooyu. Mm. alors néna len leen Fallou Dieng saa su génnee.

ba am ci tey tur bii ñu am. donc naa la leer ne man foo ma woo dinaa dinaa la wuy si. jour bi ma ko jëkkee proposé kaay tourné ma clip jëngu ndax ma ne nag lii rek laa laa laa yàkkamti woon. pour delloo lañu njukkal quoi. donc defal na ma jëngu mu nekk réussit boo xam ni kenn du ko fàtte. kenn du ko fàtte waaw xeexu sànneex ba fàllu kenn du ko fàtte. ma woowaat ko ci maanaam mu ñëwaat <laughs> donc ba ci ba ci Euh, moomee vent bi. Mm-hmm. nga xam ni bi tamit dafa correspondre ak ah. nit bi ñu soxla woon. Mm-hmm. mu mu doon moom ñu proposé ko mu ne mu ne mu ne ma amul benn problème donc nit ku baax. Mm-hmm. nit ku am reconnaissance. maa ngi koy ñaanal yàlla lu mu mën ren bu déwénee yàlla mën lu ko ëpp. di ñaanal aussi tamit di gërëm. ñi nga xam ne ñoo ñoo réaliser parce que su may gërëm suma gars yi Salim Boubacar réalisation bi dañ ci sonn. ñoom euh, Maxu. ñoom Maodo ñoom Pisco. Euh, ñoom Pascal sec euh, Galas, Baïben. Mhm. Donc, euh, il y, avait toute une équipe derrière moi. Au, même au niveau de l'album aussi, Tamit, album bi ñi ma ci wo ñep maa ngi leen di gërëm ñom ñom Assane Seck. Mhm. ñom Mourou Ndiaye Mana. Mhm. euh, euh Mustapha Fay à ah, ñom Bara Samb hein ñi ci participer ñep ñom Daba Sey tu vois ñom ñep pas nañ ci. mu nekk liggéey bo vraiment jël nañu temps liggéey ko ci anam bu sel

et puis amna na sax fu commencé jouer mm. et puis pour les nostalgiques ñi nga xam ni bëgg nañ di ma retrouver nañ may fekk Mirador mm-hmm. tous les vendredis tous les vendredis au Mirador te yenen yenen yeneen inshallah di ngeen ko xam parce que bëgg na tamit wat ci boîte yi. inshallah di jouer mais à quand Fallou au grand théâtre mais bientôt man grand grand théâtre mom bu jotee rek dina jot parce que. amna yo yoo xam ne ñoo koy waajal mais bëgguñu wax lepp légui deug la.

vraiment maa ngi pour jaajëfal bu baax a alors gis ngeen c'est ah, une émission li xew ni rek la demee woon ñu daal di ci tàmbalee ak benn sommaire bu neex clip de la semaine c'est ah, une rubrique euh, mode beauté di jaajëfal tamit samay partenaire ñoom alia ah, xeetu Aliya yu baax gamme de beauté bi nga xam ne jamono ji moo xew di aussi Karina wa moom moi un ak man sans pour autant oublier celle les concentré et Florian alors nag li moo nekkoon une spécial li xew ma ànd ci avec le grand artiste Fallou comme je vous l'ai dit qu'on ne présente plus ñu def ci souvenir clip bienvenue ñu des côtés juste pour vous faire plaisir alors l'unité moi def est juste que je vous donne rendez-vous hmm, la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Li mais avant cela j'aimerais remercier l'équipe technique de Li les gars sans vous qu'est-ce que je serais ben rien du tout hein. Pape Samba Eme, Moussa vraiment Pape ça il a <laughs> lu Willy.